إلى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 von Tuba Bayern im Besonderen. Wir bewundern die außergewöhnliche Initiative des Khalifen Sheikh Muhammad Muntaka Mbacke, der als erster Khalif von Sheikh Ahmad Bamba einen Welttag zur Lobpreisung und äh, Feier der Hasside aufgerufen hat. Es ist ein sehr wichtiger Tag für alle Muride, egal wo die sind. Wie viele wissen, werden die Chasside an der Größe von Cheikh Ahmad gemessen. In der Tat sagte Sering über die Chasside folgendes. Meine Wunder, die ich euch hinterlasse, sind meine Schriften. also meine Chassida, auch geschrieben, karamati xattu yadi fi xidmatil muayyadi wa li bil afyadi Allahu mulil karami. Trotz unserer Abwesenheit von Senegal, von Touba, werden wir inshallah diesen Tag, August erste oder zweite Muharram. so begehen, wie der Khalif Sheikh Mohammed Muntaka es empfohlen hat. Einer von euch, Ousmane Sylla, Touba Bayern, München. Tawfiq ak Taysir. kon ñu jéem a tënk rek ci kàllaama wala li ñu doon wax ci tubaab ci allemand ah, muy ginnaaw bi nga xamee nuyu nañ mbooloo mi yëpp ci turu. kuréelu xasida Touba Allemagne waaye itam ci turu xasida kuréelu xasida Touba Bayern di yéemu lool nag ci bis bu rëy bi nga xam ne Sëriñ Muntaxa Mbàkke woote na ko yàlla na fi yàgg loolu te mu mel ni ci moom lañ njëkk a gisee xalifab Sëriñ Touba bu wootee bisub xasida bu toll nii ci àdduna bi yëpp ndax murid yëpp la woo fa Touba waaye murid di seenu xër tax na ñu ñu teg bis foo xam ne si lay fu kawee kawe la ba dañoo am yéene fépp fu am murid nekk ci àdduna bi màggal ko loolu mooy mooy mooy solos bis bi ndax sëriñ bi wax na ci am bindam ne li nga xam ne mooy am mbindum loxoom muy mu ni karaamati xattu yet yi li nga xam ne mooy mbindum mbindum loxoom muy xasidaam yi nee na mooy mooy ay kéemtaanam kon euh, waruñoo def lu fonkle ko loolu waaye bu ñu demee ba suñu doxaa indi lu màggalu xasida yi ñu war koo màggal loola lu lu lu lu mucc ayib la lu mat a màggal la ba tax na ñun ñi nekk ci bitim réew donte jëmm yi nekkul Touba duñ teew ca barab ba ci ci jëmm waaye suñuy xol ak sunuy xalaat lépp ma nga ca barab ba te incha allahu bi noonu ko mun Muntaxa diglee noonu rek lañ koy defee fii ci réew yi nekk rawatina fii ci Touba Allemagne incha allah di ñaan suñu borom defal ñu tawféex ba ndaje ci ak ngërëmal suñu borom rawatina ngërëmal sëriñ bi kon loolu moo doon kàddu yi mu nekkoon seen mbokk si la fii ci Touba München waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. الكتاب والحديث انسلفا